Chers euh, internautes de www.baoltimes.com ak chers téléspectateurs de Baol TV euh, ñu ñëwaat ak yéen seen émission question de l'heure tey nag ñu dalal Amar Niang Amar Niang asalaamaaleykum naa la def. Euh, waaleykum salaam Mor mon jeune frère Baol Times ñu ngi leen di ziare merci beaucoup ci visite bi ngeen ñu rendre. Mhm. docteur Amar Niang yaakaar naa ne premier point bi njëkk a abordé mooy point bi nga xamante ni fi mu ne nii la république est un peu ak histoire d'échange yoo xamante ni très déplacé et vous en tant que responsable et politique lan nga jàppee maanaam tey jii li xew nii est-ce que ñenn ñi nee nañ fin de règne dafa am. aujourd'hui kuy sénégalais rek am nga jaaxle am nga tiitaange am nga jaaxle parce que ni yàlla dogal ñu war ñu bu ñu demee ba yóbbu seen bopp ci benn niveau jaaxle dugg na quoi je pense que li fi jot a xew te yàgg na je pense que am na ci ñoo xamante ni même duñu ay responsable politique mais boo ko xoolee une analyse globale par rapport à l'évolution des réseaux sociaux par rapport ak euh, réalité réew mi nga toog nga xalaataat laajaat sa bopp lan que l'expression et arrogante maanaam kàddu yi dafa ñàkk teggi wax yi rafetul et léeg-léeg dañ koy jëmalee ba ci nit mais loolu nañ ko tolérer ci ay ñoo xam ne peut-être amuñ responsabilité porté wuñ benn maanaam soluñ boobu république mais comme ñu moo am habitude bi wax il faut que ñu dellu si waat ci lan mooy république république au fait mooy li nga xamante ni mooy moomeelu askan c'est virtuel mënuñ ko téye ci loxo comme ça mais ku ne xam ne ni dafa am ay jumtuwaay am ay ay nit yu koy yi yu koy taxawal yu koy jëmmal mais république li ci jiitu également suñu bëggee mucc ci loolu il faut que ñu am ay critères yu koy ay canaux yu koy téye et bi ci jiitu mooy yan personnalité ñoo war a incarner république ñooñu ñooy ñan lan la ñuy représenté lan mooy seen xam-xam lan mooy seen profil lan mooy seen éducation lan moom mooy seen vision lan mooy seen ambition lan mooy seen motivation donc nekk rek fal du yaa neex fal. du ñoo àndoon fal du da nga am alal fal dafa nekk ci ay critères yu wér yoo xamante ni ci la nit ku mën a sukkandiku pour mën a fal nit et dinañuy fekk ay nit yoo xam ne sax dañuy wute ci doxalin maanaam réeroo ci doxalin ba mën a ñàkk juboo mais intérêt commun intérêt république day taxaw ba ñoom ñaar ñu war a mën a lëkkaloo. mais loolu cas boobu nga mujjee énuméré c' est très intéressant yaakaar naa ne cest à pour la marche d'une bonne république loolu moo war a am mais malheureusement tel n'est pas le cas lu koy waral souvent est ce que ñi fal eh, comme auparavant enquête de moralité yi am topp nit ki dugg këram xool son entourage tout ça tu penses que est ce que Amar Niang tey jii loolu am na. gis nga Mor am na nattuwaay bu gën a wér boo xamante ne nii tey buñ bëggoon am rek ay régime ak ay nit ñu mën xam nga ñan ñoo mën a àtte nit ñu bokk corporation ñoo mën a àtte maanaam yéen journaliste ngeen bokk journaliste ñu war a jiite tey ki yore communication ci àdduna yéen journaliste yi xamante ngeen. c'est vrai ñu leen ci santé mm-hmm. ñu ne les professionnels de santé mm-hmm. ñan ñoo ci yor profil yoo xam war na leen mën a teg ci kanam mm-hmm. léegi mu sotti bu ñu demee ci justice ñu seet profil yi nga xam ne ñoo gën a valable ci justice ñu ne ah diw. buñ ko tegee suñu kanam mbir mi dina dox donc nattuwaay bi ko gën a wóor amul mais suñu ko teggee teg ko fële léegi ñuy natte ci comment dañoo far je me suis battu et d'ailleurs c'est ça qui donne mooy xaw a mel ni ne dañuy nit ñi dañuy am droit le nag wax ne ne parce que damaa bokk ci ku fal kii ki fal kii mais bi ñu koy fal la moo taxoon nga fal ko mais da nga ko fal par rapport à une ambition pour que moom mu conduire les destinées d'un pays mais yow da nga am ci moom yaakaar mu traduire say préoccupation da am yaakaar mu taxawal li nga xam ne moom nga gëm moom la réew mi jox mais est-ce que da nga ko fal ngir que après ëllëg ngir war a mën a séddoo est-ce que da ko war a fal ngir ëllëg nga war a mën a jël sa profit c'est comme si c'est un investissement dama investir ma am ay action bu at mi dee ñu war maa fay ay ay dividende ça c'est catastrophique et cette approche là mooy li gën a bëri ba tax ne ñi am yaakaar ni am nañu sañ-sañ bu ñu tollee foofu ñoom non dañ leen war a tenir en compte dañ leen a war a jox seen gën. mais est-ce que tamit euh, docteur fi ngay waxee noonu souvent olof njaat naan uddi nu mu la gisee la lay walee et aussi tamit lu tas ak ngoro lu ne nu yónnee sa sëy ba est-ce que nekkul na donc à la conquête vraiment du pouvoir les dirigeants ou bien nos dirigeants. bu njëkk gi xool quelqu'un qui a vraiment des sous wala mën na leen a jàppale defi promesse. mais mais mais c'est malheureusement c'est ça la réalité. Voilà. Ah. sais les gens me posent la question souvent mais Abad seen politique bi duñ la gis wala nangam parce que approche bi ma am man ci politique mooy yoon wi lay yóbbu ngir nga defar loo xam ne askan bi ñoo ko bokk muy yoon wu yaatu muy ambition boo xamante ne nii ba ilal yu mu dini dootul fay mais kooku doo ko jël. di ko sekk wala nga di ko dénk ñoo xamante ne ni en réalité seen préoccupation mooy seen interpersonnel et c'est ça qui fait que aujourd'hui l'Afrique tarde à décoller c'est ça qui fait que aujourd'hui le Sénégal souffre énormément c'est ça qui crée les déceptions mooy da dem ba fal nit ngeen dem ba ci biir mais tu te rends que mais kii nekkate motivation et on est en droit de se poser des questions quelles sont les motivations réelles des gens qui ont ambition de diriger ce pays la C'est une question fondamentale. Lan moy sa jité bi nga joggé né da nga bëgg jité réew. Est-ce qu'en réalité c'est pour conduire les destinées de ce pays-là Est-ce réalité c'est une façon de se servir soi-même et de servir ses proches loolu dafa am dafa xawa nuro trahison dafa xaw a niroog trahison moo tax li nga wax sànq c'est en fait la réalité mooy le profil profil dafa féete lépp kaw ay nit bu ñuy laaj dañuy seet que ca ëpp profil profil ba nag nekkul rek boo ca xam-xam bi tegoo mooy li jiitu nag xam-xam moom kenn mënu koo delloo gannaaw parce que lépp luy dem yàlla sax dafa ni gis nga mu ngi jàngal ci alxuraan dafa ne anzaluhu bil ilmi lépp lu ma wàcc maa xalaqta haza baatilan lépp lu ma aqaata bi kulli shay'in ilman lépp ci xam-xam la ko téye la ko peege donc xam-xam mooy li jiitu li mën a tax tey am réew ñu jëlee ko fii yóbbu ko fële maintenant bu xam-xam demee nag ba pare dafa am luy gunge xam-xam li gunge xam-xam mooy jikko li digoo xam-xam mooy maandute li gunge xam-xam mooy yërmande li gunge xam-xam mooy nekk ci yittey sa askan et loolu moo waral boo xoolee su fekkee ne am nga habitude di visiter un peu le Saint Coran di nga gis ne yàlla bi muy yónni yonent yi amu ci benn yonent boo xamante ne ni base fondamentale bi tax yàlla yónni la dafa ko sukkandikoo ci ne yonent bi am na alal naa ko yónni amul amul benn yonent boo xamante ne ni la base fondamentale bi tax yàlla yónni ko ci askanam déedéet li tax mu yónni ko dafa bëgg indi ay jikko yoo xam ne astan bi danañ ko topp ngir ñoom jógee ci li nga xamante ne ni mooy seen loraange mooy la ay minorité yuy noot majorité loolu moom moo sa nekk effectivement yitte yonent yi nga xamante ni yàlla yónni leen ci seen askan boo gisee yonent yàlla Moussa digganteem ak na looloo waral